asalaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi safoo si 313 digital ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen wax ne leen dal leen ak jàmm dañuy daal di ñëw ci incident bi nga xam ni nemmeeku nañ ko euh, ci côté Amadou Ba premier ministre waaye tamit candidat la mouvance euh, présidentielle moom nag boobu les incendie euh, mi ngi am ca inauguration du centre de santé de Sakal fa nga xam ni fa la premier ministre nekkoon ak ki nga xam ne mooy docteur Marie Khemesse Ndiaye ministre de la santé moom itamit ma nga fa waaye nag dañoo gis ni ne ah, boobile mbir nag ci ab xuloo la daal di mujjee ba arme à feu daal di fay ah, génn mbir ma nag ma ngay door ci ma maanaam xuloo bi nga xam ne amoon na ci ah, membre de la garde rapprochée du premier ministre Amadou Ba moment bi nga xam ne nag docteur Marie Khemesse Ndiaye ministre de la santé ma nga doon dem ca tribune officielle ba ginnaaw bu mu jugee nag di visiter le centre de santé son garde corps nag ñi nga xam ne ñoom ñooy garde corps Amadou Ba dañ koo daal di arrêté loolu nag mënoon na nekk ab xuloo bu ndaw mais nag rapidement rek dafa daal di viré benn ci benn affrontement la ñu daal di nemmeeku ci ñaari parti ku nekk rek dafa daal di bañ ne du CEDEAO ci la tension bi nag daal di euh, monté mbir mi nag daal di jël beneen ampleur boo xam ne au début amu ko waaye nag ñu gis ne garde rapproché wu ki nga xam ne moom mooy ministre de la santé dañoo gis ne benn ci garde corps am beneen ci garde ki nga xam ne euh, moom mooy euh, ci garde corps nga xam ne moom mooy premier ministre Amadou Ba ñoom naar nag dañoo daal di jàkkaarloo maanaam ñaari parti yooyu ku nekk rek kenn ci garde corps yi dañoo daal di nemmeeku na dañoo daal di jàkkaarloo waaye nag gis nañ ne euh, garde corps ki nga xam ne moom mooy Amadou Ba ñoo daal di wër euh, kookile bañ ko wëree nag ci la mbir ya daal di tàmbali ñu jàpp ko nag di ko dóor ci la euh, garde corps ki nga xam ne mooy Marie Khemesse Ngom Ndiaye daal di génnee arme à feu daal di tiire ci suuf ci ñaari coup de la daal def tiire ko ci suuf nag léegi daal di créer li nga xam ne moom mooy ab panique générale ca boobilee jamono nag moom la premier ministre ma nga daal di uh, taxaw fa mu uh, taxaw waaye nag yeneen nit ña nga xam ne ña nga fa woon dañoo daal di quitté uh, les lieux maanaam dañoo daal di génn foofu leen nag daal di provoqué li nga xam ne moom moom eh, ab xëccoo am na fa ba gis nañ ne ab ay blessé sax daal di nay am ci loolu le waaye ki nga xam ne nag moo génnee arme à feu boobile dañ ko mujjee jël maanaam garde corps premier ministre dañoo mujjee jël kooku le daal di koy yóbbu ci ab ab salle du centre de santé maanaam fa lañ ko mujjee. daal di dugal loolu nag buñ sukkandikoo ci l'observateur moo ñi daal di jox boobile information waaye nag jamono ji ab enquête nag daal dinañ koy tijji rek ngir leeral boobile incident ngir daal di leeral boobile incident nu fa daal di demee waaye nag mbir mi lee euh, autorité judiciaire dañ ko daal di jël au sérieux ndax li ni mel rek mën na créer li nga xam ne moom mooy ab réeroo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak gàdd corps yi waaye tamit nañ daal di leeral boobu les incidents yi aussi la nga xam ne nemmeeku nañ ko ci rek mooy ab tension waaye tamit ab rivalité boo xam ni dafa daal di exister entre les deux différent euh, corps de sécurité ak tamit risques yi nga xam ni ak risques yi nga xam ne aux responsables politiques yi ñu ngi koy daal di euh, subir maanaam ab risque la boo xam ne ci ñoom ndax buñ gisee seen ay garde corps euh, juboo bi nga xam ne waroon na ci am malheureusement amu ci rivalité lañ ci daal di nemmeeku ndax jamono ci ñoom la ñu daal di exposé su suñuy dem ci ay événement officiel ak coordination bu si rigoureuse bi nga xam ne dañ koy euh, soxla ci euh, li nga xam ne mooy wàllum sécurité waaye tamit lii rek dafay tax ñi nga xam ne suñu autorité judiciaire daal di tax euh, daal ci ubbi li nga xam ne moom mooy ab euh, enquête boo xam ne euh, enquête boo xam ne dafay impartial maanaam dafay tuddee li nga xam ne euh, moom mooy njaaxaanaay parce que responsabilité aussi war nañ ko mën a partager ku nekk rek di nga jël li nga xam ne moom mooy sa wàll parce que ñi nga xam ñooy garantir sécurité ñi personnalité pub politique ak publique yi dañ cee war a def li nga xam ne moom mooy dañ cee war a bay seen waa de telle sorte que ni li mel lekk ci ab incendie dootuñ ko gisati mu nekk daal mbir moo xam ne doy na war ma nga amee foofu noonu euh, ca Sàkkal fa nga xam ne inauguration fa la amoon ci euh, ki nga xam mooy Amadou Ba premier ministre waaye tamit nekk candidat de la mouvance présidentielle nekkoon fa Marie Khemesse Ngom Ndiaye aussi nekk ministre de la santé moom tamit ba nga fa woon ñoom ñaar nag seen ñaari garde corps yi euh, ñoom ñoo doon xuloo ba arme à feu daal di fay génn ki nga xam ne moo yoro arme seen ko dal di rawale dugal ko ci benn salle ñeneen ñi nag mais aussi ñi nga xam ne autorité judiciaire yi daal nañ ci ubbi ngir leeral boobi lee mbir fan lay daal amee parce am na fan lay daal euh, mujjee ndax am na ay blessé moment bi nga xam ne ñëpp ñoom nit ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon euh, ñu ngi doon euh, xëccoo pour génn ca boobi lee lieu parce que nekkatul lieu bu sûr léegi nag ca boobu lee jamono ci lañ nemmeeku ay blessé daal di fay am suñu sukkandikoo ci l'observateur moom moo ñu daal di jox yile information fii la ñu daal di wàcc wee suñu ay kàddu di leen jaajëful bu baax a baax di leen joxaat dig daje ndikk ci kanam tuuti ak yeneen i information waaye naka bu leen fàtte chaque fois sur 313 digital.